leen jàmm fi de leen jox na tu bpactu.com di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëw ak yéen ci seen xibaaru analyse ba tax na nag li nga xamante ni moom moo gën a fës ci réew réewum Sénégal ak li ko wër rek lañuy ñëw indil leen ci plus d'information bu ñu waxtaanee loolu nag mënuñu cee génn benn yoon li nga xamante ni moom moo di inauguration wu stade bu jam Diamniadio bi li nga xamante ni askan bi yàggoon nañ koo xaar depuis ba ñu defee pose première pierre ba jii suñu njiitum réew président Macky Sall daal di def travail bu remarquable ndax liggéey na stade boobee ci anam bi nga xamante ne képp ku ko gis nga bëgg ko at nga ñàkk koo bëgg yëpp di nga ko delloo njukkal félicité ko non seulement buñ la wanee li nga xamante ni moom moo nekk intérieur bi sa xel day dal waaye boo taxawee ci biti rek yan ñaay bi nga xamante ni yan ñi ko à l'extérieur da lay pousser nga dem fekk ji inauguration bi looloo waral ñu gis ni Dakar ñu bàyyee ko waaye ñeneen ñi bàyyee ko ci yeneen raison ngir ñëw fekkee bés bi nga xamante ni yàggoon nañ koo xaar ndax ñu ci bari sax ñoo ñu doon dut baaraamu naan Sénégal amuñu sax stade bu baax ate bu ñu demee ci yeneen réew yi di xas li nga xamante ni moom moo di seen stade yi coow loolee ba ca mujj rek mooy euh, Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jóge woon euh, ca diwaanu Cameroun ginnaaw ba gaynde yi doon kaas euh, gazon yi nga xamante ni moom moo fa nekk ndax nee na dañuy faral di ca tarxiis gazon yi nekkul de bon qualité boobu nag ci la benn ministre bu fa nekk yëkkati kàddoom di leen yëgal ni laata ngeen ñëw ba Cameroun di xas ñu ay gazon nangeen xaar ba yéen sénégalais yi ngeen am stade bu baax bu ngeen mën a accueillir coupe d'Afrique des nations wala ngeen mën a accueillir li nga xamante ni moom moo di coupe du monde képp ku ñu doon xaar nag xàddina ndax démb la woon bés bu mag bi stade ba ñu daal di koy jël duppeekoo ki nga xamante ni moom moo di suñu ex njiitum réew président maître Abdoulaye Wade suñu njiitum réew Macky Sall delloo ko ci njukkal ndax réalisation yi nga xamante ni def na ko ci réew mi waaye tamit nag ah, li nga xamante ni tette na ko ko ci wàllum politik ak lépp lu mu mënti doon ah, tey jii ñëpp nee nañu waaw tur bi ah, maître Abdoulaye Wade dong moom moo ko yelloo ci mu Sénégal nag ak lu mu mënti doon def na fi loo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba faw bés boobee nag am na ay événement yoo xamante ni sedd na xol lool waaye am na ay événement yoo xamante ni rek ah, tuuti mu xawoon koo yàq li nga xamante ni moom moo di mbégte ma lañ koy daal di tàmbalee ah, gis nañu suñu njiitum réew ba mu duggee ci digg stade ba jël bal parce que benn moroomu président am ñu daal di tàll li nga xamante ni moom moo di pétare ak yeneen ak yeneen yu nu mel ñu gis ni texture bu rafet rafet rafet moom moo fa amoon ca inauguration ba ñu gis askan bi ni ñu jógee ñoom ñëpp tàccu suñu njiitum réew def ambiance artistes yu ci bari ci ñoom daal di nañ fay teew def seen playback ku ci mel ni Sidi Diop Bass Thioung Pape Diouf ñeneen ak ñeneen daal di nañ fay teew yëngal stade ba ba askan bi yëpp daal di kontaan ñu ci bari doon toog di xaarandi kii nii di eh, Wally Balago Seck waaye nag dañoo mujjee yëgal ni rek bu mbir mi dee waaj a jeex bu ñu defee match bi ba noppi ci la Wally Balago Seck di ñëw yéeg sur scène laata booba ñu daal di ñuy amal la benn match match bi nga xamante ni ah, gis nañ ko ñenn ñi di ree ñenn ñi boole jooy ak ree ndax gis nañu ñoo xamante ni mosuñoo janoog ñoom jëxërën di leen seetaan ñuy la ñu ci mel ni Khalilou Fadiga ñoom El Hadj ak ñeneen ak ñeneen daal nañ leen gis ñuy joué ah, ci télé bi waaye mosuñu toog ci stade jàkkaarloo ñoom ñuy joué cette fois ci nag ñuy joué ah, ci beneen anam ndax ñu ci bari ci ñoom mag la ñu woon waaye match ba reetaan lu na lool ndax da ngay gisaat ku ci mel ni Tony Silva di jéem a daw Euh, di euh, capté li nga xamante ni moom moo di bal bi Khalilou Fadiga daal di marqué bi ba di jumbale summi mayoom comme na mu ko daan euh, defee ci jamono yi 2002 gis nañu tamit nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa teew yeneen joueurs yoo xamante ni duñu ay sénégalais waaye ay joueurs africains lañu ñoo xamante ni dans le passé dañoo nekkoon suñu ay adversaires waaye jamono ji dañoo mujjee nekk ñoom ay meilleurs ami li nga xamante ni nag moo naroon a ñaawal bés ba mooy askan ba taxawoon ca buntu stade ba doon bëgg dugg ci biir te eh, ñii nii di takk der yi ni leen déedéet mënoo leen a dugg ndax eh, ci biir dafa fees ah, ba amatul ah, place ñooñu nag eh, ñu muñ ko muñ mënuñu ko muñu waaye bu ñu taxawee rek ba di gàtt ambiance bi nekk ci biir ah, boobee rek la ñu daal di jël ay xeer tàmbale ko sànnante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi takk der yi tamit daal di jël ay gaz lacrymogène daal di leen koy sànni ngir disperser leen mujj gi daal dañoo daal di def fair play bàyyi leen ñu dugg ba fekkee ni nga xamante ni uh, moom moo di jeextalu événement ba Wally Ballago Seck mi nga xamante ni moom la ci ñëpp doon xaarandi ñenn ñi naan dafa budde dem ndax dafa ñëw fekk stade ba daal di yaraax déedéet nee nañu li waral Wally Ballago Seck dem uh, du lenn lu dul dañ koo convoqué woon di bu 19h jotee 19h foofu la ko fekk nag mu daal di taxaw xaar lu yàgg yàgg yàgg kenn woo ko ci biir ba moment bi nga xamante ni yëg na uh, sur scène doon xaar ñu daal di teg son moom Wally Ballago Seck nee nañu tegu nañu sonam yéeg na ba sur scène ñu daal di teg sonwo beneen woykat beneen artiste ci la waa Wally Ballago Seck wàccee daal di buude dem tàllal loxo ay fanseem génn ci li nga xamante ni moom moo di inauguration bi waaye nouvelle biñ ci mujjee jot tey mooy que ni ah, kii nii di Bouba Ndour moom moo nekkoon ci wàllum sono yi ak yeneen ak yeneen yu nu mel maanaam daal moom moo doon organiser wàllum artistes yi war a yéeg ak yu war a wàcc ba tax na daal ñu ci bari euh, tey jii du nañ ko baaraamu tuuma ci seen i commentaire mbokk yi tey li lañ leen indi naa ci seen xibaaru analyse jaajëfal leen jox leen dig dajabu suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf